ومدفع عن كل عاجل مجرمين وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من داعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباعي ومتركا لسبل ابتداعي ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأدعجا أثر رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار bil mu dabat banqule su andari waqabir liman banaw alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammad al makin alihi wa sawi ridwan wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullah ngi leen di nuyu te leen siyaare di am mbégte bu baax ci barab bi nga xam ne teew nañ fi tey ngir fas yéene ànd dëggeel sëñ Tuubaa Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul ci dëkkam bii di Tuubaa ñu nekk ci pàkk bu tedd bi di Mbacke Baari goog Cheikh Sidal Muxtaar Mbacke ibnu Cheikh Mouhamad Lamine Baara Mbacke Baari gi sëriñ Saliou Mbacke moo ko joxoon Cheikh Sidal Muxtaar mu tuddee ko Mbacke Baari ak Cheikh Mouhamad Lamine Baara gi nekk euh, Njàmbur euh, barab bi nekk ci barab yi nga xam ne Cheikh Sidal Muxtaar moo tànnoon mu nekk daal nekk barabu jàngukaay euh, mi ngi ko jox mu ngi ñu ko jox 2013 ba tey di. ba tey mu nekkoon ñetti barab ñaari barab yi àgg na ba ña ngi koy jàngale waaye barab bi moo àggugutoon ñu amoon yéene eh, def benn projet boo xamante ni bii eh, dañ ci def ay bâtiment yu mag lu toll ci juróom ba juróom-benn bâtiment yu mag yoo xam ne ni eh, danañ ci mën a jàng alquranul karim waaye danañ ci jàng xam-xam majalis waaye danañ ci jàng école primaire ba bac danañ ko fi jàngee waaye danañ fi jàngee formation professionnelle tey nag ci àjjuma ji tombeek juróomi fan ci weer wi ñu nekk ni di weeru juillet euh, euh, ñu ànd ak euh, Abdou Lahad Fall mi ñi ànd ak waa ànd ak liggéey Sëriñ ak waa daayira xidmatul xadim ci njiitul Serigne Seydou Diagne ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñi ngi ci barab bi yëpp tey nag ñu ñëwoon fi ngir tàmbali liggéey bi ndax liggéey bi la waajal bis bi ñu fi fas yéenee def mooy le 10 août pose première pierre bi taxawu liggéey bi waaye nag balaa loolu waa ànd liggéeyal sëñ Tuubaa jiitu si fi ñu ànd liggéeyal sëriñ bi ci barab bi ci bale bi ci dindi ëkk yi ci tabax yi balaa nit ñi ñëw ngir waajal ko loolu nag tey eh, ci lañ nekkoon eh, bisu tey bii tamit ci la dem ci Cheikh Mouhamadou Mountakha fa lañ jógee nii ñëwaat ci barab bi ngir tamit wax ko liggéey bi fi mu toll te laajaat ko ci ndigal ba mu joxe na ci ndigal xam naa da ngeen gis yaatal yi ci kanam incha allah rabbi kon nag ñi ak Abdoulaye Fall bisu tey bii nii moom laa ko waxoon nañ ci soññ mbokki taalibe yi ñu àndaat ñëw yenn ànd liggéey sëriñ bi ci tabax bi ci miir yi ak nañ leen waaye sant naa ñëpp ku fi teew bég naa ci yéen lool sama xol sedd na baax a baax li ngeen fi gis yëg nañ ko yàlla na ko sëriñ Tuubaa fulal leen ko ndax sëriñ Tuubaa nangul na leen ko ndax bépp taalibe buy jëf liggéey sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa nangul na la ndax sëriñ Tuubaa ku mu bëgg a dimbali da lay liggéeyloo ku fas yéene daray sëriñ Tuubaa xamal na sëriñ Tuubaa nangu na ko ba jëf la moo tax mu lay liggéeyloo ngir fay la ndax kum liggéeyloo dina la fay kon kum liggéeyloo santal yàlla ndax bëgg liggéey Sëriñ Tuubaa taxut a liggéey Sëriñ Tuubaa bëgg xëy la Sëriñ Tuubaa ko kon mooy fàggu ñi koy defal ak nañ ko koy defalee ku ci bokk santal jërë ngeen jëfati bisimilah. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar di am mbégte rek ci mbooleem ànd liggéey Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne teew nañ ci barab bi nga xam ne mooy Mbàkke Bari ci ndigalu Sëriñ Mame di daara ji nga xam ne moom la fi nam ma def yàlla dogal nag mu sàkkoon teewaayu mbooloo mi ngir ñu ñëw jàppale ko ci collectif bi ngir itam waajal tari alxuraan boobu nga xam ne moom la ñuy amal waaye nag di ci am mbégte rek bu baax ci waa daayira bi wuy si gi nga xam ne wuy si nañ ko sëriñ bi di ci am mbégte bu baax te di ci am ak cant di leen xamal ne itam ab morit moom li rekk la jëf jël sëriñ bi lépp lu digle dañ cee war a mën a taxaw te itam loolu rek la ñu xamee. ndax bañ nañ ko ba ànd liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Ibra mooy turu daayira bi kon nag lépp loo xam ne si ne Serigne Touba da koy santaane dañu caa war a fekk waaye lépp loo xam ne Cheikh Ibra Fall santaane ko dañ ko war a fekk tey jii lii dafa doon santaane bi Serigne Touba ak Cheikh ñaar yëpp la boole mooy daara alxuraanul karim joo xam ne Serigne bi da koo bëgg a defar fii ngir itam jàngal ci euh, mboolem jullit ñi kon nag ñun itam tey itam ñu xam ne loolu yiwu rëy la yiwu kawe la te itam lépp lu ci waay def itam maanaam dalay topp. Euh, àdduna ak àllaaxira kon moo tax itam tey ñun li ñuy wax rek njariñul tey ak ëllëg rek la ñuy wut kon nag yaakaar naa lii nag mooy njëriñul tey ak ëllëg mooy bara boo xam ne sëriñ bi da koo def ngir ñu fi jàngal alxuraan kooku yaakaar naa képp kum ci woo rek war ngaa wuy si kon nag wuy si gi ñu wuy si yàlla nañ ci dëpp ngërëmal sëñ Tuubaa yàlla nañ ci dëppoo ak tawféexi sëriñ bi waaye nag cant gi leen sëriñ bi sant lu mu leen sant rek war ngeen koo sant lu ko raw ndax lii mu doon leen defloo na leen xam ne maanaam yiw wi ci e, tàmbalee tey lay tàmbali ba àdduna tukki ba ci biir bàmmeel dafay gunge doomu aadama bi mooy daara joo xam ne dañ tey jàngale alxuraan kooku képp kuñ ci woo rek war ngaa wuy si ndax dong bu ne fi baax ba muy mokk alxuraan lépp lu mu fi def suñu borom dana la ci bindal aw yiw lu ko suñu borom bindal aw yiw dana la ci fay kon nag loolu la baax la jariñ baax te ñu xam ne maanaam lu baax moom nit rek koy sàkkul boppam kenn ku ne lépp loo sàkku ngir am ko suñu borom dana la ko defal kon nag fépp lu gisat ci lu baax wala lépp loonu xam ne lii kat jëfi Serigne Touba la ñu ciy dugal sunu loxo te di ci tabal sunu ñaq te xam ne lu ci waaye def itam Serigne Touba rek moo lay fay ñun nag dañuy santaat Serigne bu baax te yi ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ndax yaakaar naa jotaayu liggéey yi ñu ànd ak moom depuis 2009 ba léegi ñoo ngi koy ànd. waaye nag lépp itam ci liggéeyal sëriñ Tuubaa rek ci lay tàmbalee ci lay yem te lépp lu mu song lu mu rëy rëy ma nga yotuwaat leneen lu ko ëpp ndax yaakaar naa sànc yi ba muy nekk ci xelam mm, booba yàgg na lool waaye lépp itam ñu xam ne rek maanaam moom li nekk ci li li mu euh, ëmbal xolam ngir bëgg koo liggéey sëriñ Tuubaa lu yaatu la waaye ñoo ngi ñaan ci kàttanu sëriñ bi daal lépp lu muy liggéeyal sëriñ Tuubaa yàlla bu gëstoo rek yàlla nañu gis ci barkib sëriñ bi te sunu borom may ñu xéewal nag gu yaatoo yaatu goo xam ne si doon ko mën a def itam di ko ànd ak moom ndax kat liggéey mi woote lépp jëmmi sëriñ Tuubaa rek moo tax kon nag yàlla nañu sëriñ bi gën a dimbali gën ñoo doolee kattanal ba lépp lu muy liggéeyal sëriñ Tuubaa bu gëstoo gis ñu te lépp lu muy liggéeyal sëriñ Tuubaa itam ñu man ci loo xam ne si ne danañu jariñ àdduna ak alaxira kon nag nañ gën a doolee góorgóorlu baax gën a takku bu baax a baax xam ne kat liggéey yi muy woote yëpp dañuy doog day maam day doog a door kon nag li li ñu war mooy fas yéene ko ànd moom ba liggéey bi ak collectif bi àgg ñu continuer moom ba tari alxuraan bi nga xam moom la ci bëgg a def bëgg a tagaale xeer itam lépp suñu borom àggale ko jàmm ñu ànd ak moom nag ngir sànc yu mag yëpp ba lépp àgg ñoo ngi naan sëriñ bi mu may ñu ak wér may ñu kàttan dëbb ñu wërsëg ba lépp lu sëriñ bi bëgg suñu borom dimbali ci ban man ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa linsana min alaq iqra wa rabbuka lakram alladi allama bilqalam allama linsana ma lam yalam